mbokk internet yi ñu leen nuyu baax baax di leen ziar euh, di bu baax tey nag ñu ngi fi parcelle certifié suñu xaarim gëj nañ ko gis torom nag <laughs> waaw xam naa dafa nekkoon ci yitte rek uh-huh. wax dëgg jàll te amuñu woon sens toog toog ak moom mu wax ci a ñëw bàyyi nga nuyu suñu internet yi asalaamaaleykum ginnaaw ba ma sant yàlla julli yonent bi

Balla mag ko tuuti parce que sooy seet ñoo bokk génération parce que nit soo ko mag soo ko magewul 10 ans rek yéen a bokk génération waaw Balla may ko sens parce que Balla sooy seet dafa jël kan avance loolu moo ko bëreeg Boy Niang bëreeg Bombardier Bombardier daan ko mu jël bëreeg Gris Bordeaux daan Gris Bordeaux bëreeg Boy Niang Boy Niang daan ko wala bëreeg tamit Eumeu Sène kon loolu lamb la sooy seet lamb de Balla dafa dundal lamb waaw bëreeg xale waaw mu am sens bëri Balla Gaye 2 yàlla dogal mu daan Balla Gaye 2 société bi mu daan Balla Gaye dafa dem di bëri roi des arènes lamb moom soo daanee sax da yëg mais soo soo soo daanoo wàcc mm-hmm. kon Boy moom it am na mérite di féliciter Balla di encourage di féliciter bi Boy Niang ñu euh, bëree ñoom ñaar waaw bëri nañ Balla xam nga habitude moom du ko bàyyi parce que arbitre dina la may une minute soo ko def li muy def mm-hmm. sooy seet ñëpp xamoon ne Balla bala euh, xëpp ko boo ñaa taxaw di ko xar bala daw di daw song ko li mu def sëpp jël suuf si xeex dajeeg boo ñaa ñu waxee weccante fa ay coups mais coups yi sax dalul noonu si leen daw euh, jàppante euh, boo ñaa daw di ko sol ko di ko takk bala rasu boo ñaa sooy seet da ko faq sax ba bala rëpp du bala rëppee ne di jug da ko dóor placage bu suufee bala jaaxan vraiment sooy seet sax bala te avant loolu sax bala moo njëkk dem jëli tànk bi lu mu jëlee tànk bi taf jéego ba ba mu ko jëlee tànk dañ ko soo jël dañ koy génne mais mais nag mbër daa sooy daan moo tax bàll bu ne cas tànk bi ñu ma ko téye baaxul tànk bi baaxul ci lay dem di dig jëli ndigli waaw bi ñu jëli ndigli boo ñaa dafa rasu nag fàq mu rëpp bi bàll jug na mu dóor ko plaqué bi suufi bàll jaaxan li san mu toog ci kawam daan ko jël bu rëy ndam nag suñu borom na koy joxe vraiment di félicité boo ñaa xam ne am na ndam rëy man nan Balla Gaye sama palmarès moo dàq sax roi des arènes Balla Gaye tamit am na mérite li def ci lamb mbër a defati sept ans nga nekk roi des arènes vraiment mbër du ko gaaw defati vraiment ñu koy félicité di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal salam di félicité boo ñaata mi nga xam ne ni am na yar am may teggin mooy ambassade non violence mm-hmm. waaw ñu ngi koy félicité ñoom ñaar ñëpp vraiment ndam li daal génnu Sénégal waaw génnu Sénégal mooy xale dama ko waroon déglu tuuti mais Balla mook Sa Thiès ñoo yem ñoom ay attaquant lañ duñu mbër muy xaar lu xaar xaar du weesu une li ñu wax la ñuy def noonu la ñuy amee ndam noonu la ñuy daanoo mais soo seet li ñu ci am victoire moo ëpp li ñu daanu parce que nit kenn du ko puusal kenn du ko wax ma kenn du ko dindi mëninam Balla loolu la mën mais mënoon na xaar tuuti rek mais nag soo seetee keroog vraiment euh, Balla mënoon na gën a pare ci combat bi waaw soo xam lamb dafa bëri ay yoo xam ni kenn mënu koo wax waa gàlla ji fii xam nga defante fee xam nga soo ñëwee duñ la xàmmee te sooy daan nag da nga nekk cuune mais fekkoon Balla bu nekk ci yoon loolu mu jàpp Boy Niang loolu action waaye nag bi keroog bis bi du bisu ndamam bisu bo ndama Boy Niang la woon xanaa xamoo sëñ Xadim soo soo waree daan mm-hmm. loo def da ngay daan mm-hmm. même suñu la waroon ndam sax da ngay daan parce que ndam suñu borom rek moo koy joxe mm-hmm. sëriñ boo mun dem nag ci yàlla rek lay ñaan waaw vraiment ñoom félicité Boy Niang di encouragé Balla lamb noonu la génnul Sénégal waaw wàññiwul dara Balla Balla ci lamb macha allah daan Yékini Tyson Moustapha Tine Baboy Moustapha Gueye Mbaye juuf Tyson Junior dem si yàlla ji Boy Sey Mbaye Diouf Koli Faye Ousmane Diop Bathie Seras ah Balla Diouf Balla Gaye champion la waaye Boy Niang tamit bi ko daan tamit am na mérite bu parce que bi mu Balla si dem bëri Modou Lo roi des arènes ah. nga xam te ni dafa yeneen paax te pourtant dafa jugoon si ñaari défaite la dégg daan ko Moustapha Tine daan ko ñu naan Boy Niang mu dara ci luur ah. waaye bi mu ñëwee suñu suturaal ko mu daan Balla Gaye ndam nag suñu borom moo koy joxe ah. keroog yàlla ko may ndam xañ Balla Gaye yaa ñul dara ci Balla Gaye Boy Niang tamit am na ndam rëy ñu

dafa daan Modou Lo ñoo ñaa ñu daan Balla kon ñoom ñaar lamb boole leen lamb ñor la amateur yi bëgg ko coow li bëri mu taxaw mu taxaw mais combat Modou ba ak Boy Niang waaw xam nañ boo ko bëree ci attentif bi xarante bi mais bëri bu neex la ñuy bëri ñoom ñaar mm. parce que ay technicien lañ ay ndaaraan lañ mm. ba pare ay athlète lañ mm. ñoom ñaar ku ci summeeku ci lamb di ngeen état Modou Lo xam naa ko bu baax sooy seet deuxième turam entraînement la tudd deuxième turam entraînement la tudd toujours day nekk prêt Boy Niang keroog état bi mu indi moom Balla man daf ma jaaxal trop soo seet moom nag dafa indoon volume boo xamante ni def na a yëngu mais bii da lay leen ni contact na physique na def na réveil na doole bu wér sooy seet wàññi yëpp doole la soo bi rek une deux bi rek nga xam ni Boy Niang mii dafa pare tey su doon bëri ba suba tamit du gën a yàgg day gën a dugg si combat bi mm. waaw vraiment te Modou laa gis mu dalay bëri ba léegi mosu du ma gis mbër mu ko tuusi tuusi bu garaaw parce que benn am na garde ba pare am na taxawaay gauche lay teg boo ñaan teg ñaar euh, ay fausse garde lañ combat bi nag déwén la waaye combat bu doy war la waaw combat bu doy nag day taxaw euh, xaar euh, boo ñaa pied ferme parce que roi des arènes Modou ko yore te boo ñaa nee moo xale moo soxla kon Modou da koy xaar xool la boo ñaa indi boo ñaa nag da lay mel ni ku la ragal te ragalu la ragalul benn mbër de mën na xeex moom it mën na bëri am ma garde ba pare neexul duma moom moom sooy seet dañuy demee ci biir bëri bi dañuy demee ci xeex bi dañuy demee ci bëri bi parce que ñoom ay ay xeexkat lañ ba pare ay bëgaar lañ ba pare ay bërikat lañ combat bi nag sooy seet dina am xeex dina am bëri a yàgg parce que lamb suñ la cité suñ la séntu fit da ngay parce que ku leen ne ma xam lamb rek ne bàyyi bi du mas mii man mii muy keneen da joxe suñu xalaat mën naa ñëw gaaw lool mën lool mais ni ñu gisee ñoom ñaar ni Modou tamit léeg mu taxaw di la xaar moo tax gars yi jàpp ko combat mën naa yàgg mais nag lamb euh, kenn xamu ko mën na ñëw gaaw lool mun naa ñëw yéex lool waa lamb sa nekkul saa yee bëggee mu gaaw mu gaaw nekkul saa yee bëggee jeex mu jeex waaw lamb moom bis bu nekk bisam la rek ko ci conseil muy xeex ñoom ñaar ñoom ñaar dañuy xeex parce que seen xeex dafa jaar yoon ku si nekk def nga boxe hmm. waaw ñoom ñaar ku ci jël ay xeex xeex da ngay xeex mu normal la ñuy xeex Modou Seye Sène day xeex gauche gauche droite Modou day xeex hypercule day xeex ay crochet long Boy Niang nag dafa nekk pied droit di xeex ay benn loxo

Euh, doole moo koy gagné wala xeex moo nag ñoom ñaar par force dinañ koy ji parce que combat bu jëm déwén moom. Hmm. il faut ñu am doole. Hmm. Modou nii rek boo ñaar dafa nekk. ñoom ñaar mosu ñëw ci lamb sax ñu summeeku ñu ne ndax entraîné muy Modou muy Boy Niang at la nañ mosuma gis si ñoom Grèce hmm. kon loolu koo ko gis si mbër jàppal ni am na doole soo xoolee Boy Niang xoolal trapèze yi xoolal dos bi xoolal triceps yi xoolal biceps yi xoolal arrière cuisse yi da nga xam ni Boy ñaar dafa daj ay coono contre Balla Gaye Modou xool soo xoolee combat mujj moo gëmat seen bu mu dawee daw ci géew bi nga xool Modou Lo nga xool euh, doo bi xool trapèze yi xool euh, triceps yi xool biceps yi xool arrière cuisse yi da nga xam ni Modou mi au top la nekk te lamb tamit noonu la gis nga lamb suñu la fayee xaalis yàgg sa nawle nga am ay mbokk parce que lamb dafa am ñu la bëgg am ñu la bañ moo ne ku ci nekk rek defal ful la ak fayda ndam kenn xam fu mu nekk suñu borom rek moo ko joxe te ñaari ndam mooy dugg benn mooy génn waaye Sénégal bañ ñu ko daanu li ñu bëgg mooy ku indi fulla ku indi fayda ndam nga bàyyi ko tabaraka taala te ñoom ñaari seetlu nañ si ñoom parce muy parcelle muy Pikine la parce que Mour dafa jëloon roi génne ko foofu ci Eumeu Sène surtout sama xoyat bi boo ñaa nekk ko di jooy jooyaat boo ñaa ne ko ah da may fay bor de moo lay wan combat de tous les la ñoom combat de tous les la ko tuddee comme des na dañ si barkeelu gars rek déwén léegi ñu jeexal ci combat Sa Thiès bi mhm. amoon bi amoon euh, keroog arène waaw combat bi waaj avant combat bi noo gisee woon critique yi gars doon def yëpp seen poids yi dafa na ñu doon reproché Reug Reug li mu jël ne Sa Thiès xaw ba noo gisee woon seen poids ñoom ñaar euh, mhm. préparation Sa Thiès fekkul préparation Reug Reug danañ gis signature contrat rek gis ñu waaye kii dafa wàññi poids Sa Thiès yooyu seet euh, pourtant nii da sa mës a toll de bi muy bëre euh, bi muy bëre combat bu mujj moog Moussa Ndoye sax la xaw a ëpp. contre Moussa Ndoye ëpp waaw. te Sa Thiès lu tax mu doy war mooy nu mu diisee noonu la atténé boppam. parce que moom nu mu ponkalee macha day entraîné mel noonu moo tax day gaaw soo gisee day jël poids bi suuf yëkkati ci kaw. loolu ku diis ba pare attan sa yaram rek moo koy def. Sa Thiès kon yàlla ko may loo xam te lu mu ko may ci mbëri am na doole mën na bëre am na sañ ba pare su arbitre boobu ñu lay agressé képp ku leen mënu far na la daan bi doo xam ndax daan leen Sa Thiès mën na daan parce que vitesse bee ba pare dafa explosif loolu moo tax vraiment ba pare mbër doo gaaw a defati soo nee Reug Reug ñoom li ñu def ci fi ak ñoom Mamadou Ndiaye mbër doo ko gaaw a defati ko mooy événement ni champion la ba pare nekk MMA ba pare nekk ndaanaan boo xamante ni fii ki ni tolloon foofu parce que mbër mi nga xamante ni daanu damay dégg ñuy xaw a critiquer rek mais bi ñu ko critiquer parce que mbër moo toll foofu soo demee mosoo daanu da ngay jàpp ni ku taxaw sa kanam moo la mën waaye nag moo ak Sa bokkuñu Sa ne mu doon bëril ak Reug loo mën-mën xeex normal soo ñëwee si lamb du feeñ parce que moom xeexu lamb lay xeex waaw Sa mën na boxe ni normal mais su ñëwee si lamb da lay gëdd dóoral ay laaw

parce que loolu la waxoon signature bi mais lamb naxante la su le séntu euh, puchanné da ngay fit mais rek soo seet da ko aspiré saa gëdd ko léegi toog moom gëdd ko rek réglé bi mooy njëriñam da ko paqueté ba dëcc mais saa ko paqueté seet passé dafa rasu ba jëx takk rek sax dem na ko du ko def genre rotation saa jéggi tànk gauche bi fu faaxu ko mu rëpp def kat appui waaw seet foofu arbitre dafa juum mais foofu saa kees moo daan foofu saa kees moo daan parce que tamit lamb euh, nit yi dañuy xool bët euh, di di gis di wax. Mhm. mais ñu bari dañuy bañ ku leen mere wala dëgg. Mhm. mais sëñ Abdoulaye na ne. waaw sëñ Abdoulaye bu mag yàlla mhm. même suy dem aras tey soo ko waree dëgg waxu ko. sooy seet vraiment saa kees mu bu ñu defee action continue tagène am na fili am na méritant su ko neexoon day dem fekkoon yéen na mbër dañuy ñibbi parce mun nañ ragal Reug Reug mais bu la wan ni saa kees amul mbër bu muy ragal ci àddina Reug Reug a bari loxo mun a bëri njamb nga dëkk ko daan arbitre jël amul nga taxaw bëri wat kooku Sa Thiès dafa jar félicité ba pare tamit ñun def vraiment ni ci ni roy ko gis nga keroog su demoon dinañ ko ci acc soo mati relikaam di ko jot waaye sa ah ko da yàqu tasin moom Bombardier ko aj Sa Thiès jot vraiment ñoom ñaar ñëpp am nañ mérite rek c'est grand champion ba pare seen lamb dafa ubbeeku fu mu nekk ñoom ñu ngi ci cour des grands mu réer mu sax non coow lu bëri jaan ci fële ñu ngi koy char liiru jaan nit ku baax la ku bëgg sëñ Tuubaa ku am yar ku am ay teggin maa ngi koy char ba xaarim Njaay tam kilifa la ba pare moom waa Daaru Rahmaan la si xanaa xamoon sëriñu xaarim Njaay sama magu sëriñ sëñ Maxtar sëñ Mourou Abib Mbacké mooy sëriñu bale bi ñun ñëpp suñu sëriñ ñoo bokk benn bàyyi sëñ ab borom dër mooy seen papa kon nañ ko rafetal moom tur bu mu am muy borom jumaa ji yaakaari jaam ñi téeg ëllëg waaw na am nu muy communiquer nu muy communiquer parce que gis naa sax après mu jéglu xam ni euh, neen doon jaay làmb ji rek mais xaaral ko xam ni xam géej waaye benn lañ ak moom liiru nañ invité añ rek xam ni Sénégal daal ndam li génnu Sénégal mhm. noo gisee ndaanaan la Balla sooy seet ji na un mois kenn mënu ko gis mais coow jot na fa am nag si biir. gis naa coow li mais avant loolu parce que bi ko boo ñaar daane bi lii kenn mu ngi ko gis. Mm-hmm. gisuma ma interview gisuma ko fenn mu làqatu mais soo am ñu bëri jàppoon nañ sax du ñëw parce que Balla ñëwul open press ba. kon bi mu ñëw lamb dafa bett gars yi euh, seet keroog Balla da ci combat bi si tax xërib sooy seet bi ba Sa Thiès départ sa yaram sax day daw gis yaayam gis Balla nga xam ne deret deret moo foor keroog keroog ku si nekk muy saaro yi muy euh, géejawaay ku si nekk ndam la jëraloon waaye nag lamb ñaari ndam mooy dugg waaye benn mu génn waaye ndam moom tabaraka wa taala rek moo joxe vraiment di leen féliciter di parce Balla nag sooy seet xaw na kii lamb ji parce que toolool bi mu amee moo gën a yëngal lamb ji parce que lamb Balla tamit mbër mu mag la ba pare champion la ba pare xam na bis bis jaaxal Sa Thiès demal combat bi sa loolu nag da ko doon pousser vers la victoire parce que xam na ni comme moom dafa jógee si défaite ak Boy Niang ah waaw dama dégg Boucher mu wax loolu ah. nee na bi ñu nekkee avant dañuy dem lamb ji da ko ne lamb ji sa lamb la lu mën def yaay am ndam te Sa Thiès tam borom fit la ah. borom jom la ndam nag a koy joxe kon Sa ko ko xam attan da lay dem Sa na daan koo xam sax mu kookoo ko mën parce que vitesse bi la vitesse bi gëdd bi ñu lay gëdd ak laaw bi ngay jël da soo mën day yàq sa bëri Reug Reug moom fu mu ko egg baax na lool mais Sa Thiès am day bërikat ba pare Reug Reug bërikat ba heure la def foofu ba waral Sa Thiès génn Sa Thiès euh, bi mu ma ko paqueté ba jeex parce que dafa bi mu rasoo Reug ba pour wala Reug dafa mën a bëri bàyyi paqueté bi dem di def rotation soo tee da mel ni ku xuloo saa saa ci la fëkk tànk gauche bi Reug bi day bàyyi mu fàq ko mu jiitu mu rëpp mu mbaat ko parce que poids am day day sëfu ci kaw Reug loolu indi jël bi vraiment bëri na erreur ci nag nit ku nekk nit la te nit tamit day juum arbitre bi euh, dafa juum waaw keroog su ñëwoon yëkkati loxo sa kees kenn du wax dara man kay li ma jaaxal mooy écran bi nekkoon foofu comme wane nañ ko mu leer mais comme VAR day am ci football ñu mën a xool ne Salif Sakho yàlla jox na ko dam dañ juum su ko defoon moo tax gars yi yàq nañ saisi mais nag loolu ñu koy ñawlu mais mer rek moo tax loolu mais arbitre bi koy ñu ba pare di ko jégal xam ne nit la te nit yàgg na euh, arbitre ay combat événement kon si juumee si ne tey bi am nii teewul nga bëri nga bëri saa yu mag si combat bi ndax am suma ñaari nit muy euh, kuli ak daa xam nga yow suñu borom moo ñu boole

mais bee tamit comme day chaîne bu ndaw bëgg nañ mu màgg comme yëpp yéen yéen a ko war a dooleel muy li TV muy 4appuis muy chaîne yëpp parce man ku ma woo ci war naa liggéey yow di leen nuyu muy saaxo ak kuli waaw ñoom ñor suñu nañ ma lool ñoom ma gën a xam lii ci la bokk canapé bi fu ma dem xaarim canapé la te yow maa ngi moom jaam maa yow ñoo muy sëñ sëñ mag bi waaw sëñ Njuuba moom ku ñu ko tuddee juróom ñaari jikko te yow vraiment am nga yar am nga teggin da ngay dem fii ba mbuur fu nekk lii dina dem ba nekk télé man maa la ko wax sëñ Tuubaa ku ànd ak moom di nga jëng mais doo daal mukk di nuyu nag waa États-Unis muy Mohamed Talibi suñu am mu ngi euh, koy char baax koor gi da si doon jàpp xam nga koor gi tamit ñëwaat na di ci woo tamit euh, Karaas yi vraiment woo Modou ah. Wade Italie ci ndogu yi ci ndogu yi parce que kuñ koor dañuy teg fii chaque jour mën a café ba pare saaku sukkar bi cinq jours lay def di ci woo ñëpp soxla nañ daal doolee poos waaw maa ngi ci woo Mohamed bu États-Unis ak Modou Wade Italie maa koy woo vraiment di woo Ousmane Seck États-Unis ak ñoom Yékini Junior di gërëm sama waa écrit jàmbar ku mel euh, na rek mhm. yow di sa chaîne moom suñu kilifa la comme bii moo njëkkee te yéen euh, kilifa yi ñun ñoom seen ginnaaw ñu leen dem bay bokk sa di liggéey parce que góor jàpp ci góor la góor jàpp ci góor waaw di nuyu ñëpp nag vraiment di nuyu waa Ngàcc Fall yëpp mm. waaw di nuyu sëñ nga xamante ni moom bi mu juddoo la sëñ Tuubaa ne xam naa koo mag waaye ko gën amu fi sëñ Abdou Lat mag bi mu juddoo mm. la sëñ Tuubaa ne xam naa ko ko mag waaye ku ko gën amu fi waaye am naa ci moom yaakaar di nuyu nag sëñ Muttalaa bu suñu soy bu mm. waaw damaa dem foofu avant Kazu Rajab bi mm-hmm. mu teral ma mm-hmm. defal ma teranga yoo xamante ni te ngir jëmmi kuli

mu taxaw ne ma xaadim mënu ko nam mënu ma ku la daan rek yàlla nga man dama doon toog lu ma deux mois sama yaram di daal suuf waaw loolu nag du gàllaaj dara entraînement gàtt tànk am hygiène bi nga xam aw ma caaxaan parce que sëñ xaadim gars yi tamit nañu ma too soxla waaw fu mu nekk nii sonn bi na di ba mu naan dama sonn ah mu a dar moom su yàggee yi ñëw nag yaay fàll laa bëgg waaw macha allah jot na jot na jot na da ko móodloo bi ma ko jot na mu ne ma na Modou Lo nee na ma xoolal dafa lépp càng beeg lépp maa koy joxe du ñuy dem Papa Sow suñu kilifa Siteu ñoo ngi koy gërëm ci li ñu def Fodé ku nekk war na ci jàng Siteu taalibe bi dëgg la ku bëgg Sëñ Tuubaa la ku dund Sëñ Tuubaa la te Sëñ Tuubaa ku koy dund malaaka yi ñooy seen nawle war nga gën leen waaye bëgg Sëñ Tuubaa te yàlla tax moo gën àddina ak li ci biir li mu def ñun ñëpp ñoo koy rafetlu di ko ñaanal yokk ak wér yàlla na daje ngërëm Sëñ Tuubaa Papa Sow tamit def na fa bu rafet papa tamit ku am yar la ku am teggin la ku am hygiène de vie la papa Sow yàlla na ko yàlla may mu dugg rafet carrière yéen bii mu bàyyi ci lamb li des ñëpp jàpp xam ne seen yëfi bopp moo matul su baaxee tabaraka wa taala la mhm. euh, yëpp nag ñu nekk si groupe WhatsApp yi ndeysaan waxtaan di lañ sant ñoom ñëpp di nuyu diaspora bu baax di sant ñoom tamit jox rendez-vous bu beneen yoon incha allah waxtaanu lamb